laajee ay jaas yi nga xam ni nag moom naa la li ngay xeex moom mooy làmmiñ waaw fu mu fu mu génne wax waxu naa fekk génn fa yow wax ko ni ko loolu nga xam ni moom nga wax wala nga def ko yóbbu naa la dafa am nag stratégie bil hikma wal mawidati al xasana yàlla boobu yonent yàlla Muhammad dellu del del del del propagande ak yàlla bil hikma ci li nga xam ne moo di sagesse waaw ba wax bu rafet ba convaincre bul saaga waaw bul xeex fekk xeex jotul te il faut ñu nga gëmul wala il faut nga jógee fële ñëw fii ñëw ci man loolu islam sant ko kenn daal di la am bindee bul forcer kenn yow yow Thierno Mohamed ci diine diine acceptation la tout d'abord léegi nag nga koy wane ñaari ñi ngay jëflanteel ki ngay jëflanteel ki ci njëkk. yàlla moo tax yàlla ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'maalu binniyaat li ngeen di jëf fi yàlla di taxaw pour fay leen mooy yéene bi ban intention nga am ci jëf bi intention bi ñun ñii mën nañ koo bañ a mais yàlla moom foofu lay xool léegi nag comme que ay nit lañu te dañu war di juge nit ñi. li nga xam ni moom nga yéene da nga koy jëmmal ci ay fee yàlla moom jarul nga koy jëmmal moom boo yéene rek xam na moo tax ni innamal a'maalu binniyaat man ak yéen sama relation ak yéen relation bu sew la mën nga nekk fii ci jàkka ji di kawal ak ruku sujjóot ba pare doo ci am tus waaye nit ki dañ naan kii jullit mais yàlla moom xam na ni yow naa fexe biir la ah moo tax ba innamal a'maalu binniyaat seen jëf yi yàlla di nangu ëllëg moo yéene bi waaw ah, yéene léegi li nga xam ne moom moo di jullit yi dañoo yoon loolu jàllalewul fret yaa koy gàttal sa bopp ndaxte ñëpp dañuy yéegi avion bi quatre cent et quelques personnes wala cinq cent. loolu taal xam nga taal bi màkk daf ko éveillé wala sëriñ bi màkk. ah taal bi. waaw. sëriñ bi doy na waar ku leen sa bagage de. ko mu la ko fële fële ko bàyyee mu la mooy fële ku leen sa bagage yaa koy yéen. wallaay la loolu. wala nga xam wala désir waa si nekk bi seen oxra rek nga dem bàq day gis benn meer boo xam ni yaram bi mi ngi tolli tabax bi mais day gàddu ay bagages am kenn du tànket kenn du ko nekk sa bagage du ko mu yëg waaw léegi nga xam ne ñoom ñooy yenn mu datu bagage yi dafa am fu ñuy yem waaw léegi pousse pousse pousse pousse bi aussi dafa am fu muy yem moo am solo tukki am solo daf lay war lu bare bare waaye mag da nga di yërëm wallahi laa da leen di yërëm waaw te ñun sénégalais dañu buggi ku jaay ji man man nekk naa ci commission bi presque dix ans da ngay gis benn ni li mu jëlee ci bagage ñëpp ñu sànni ak yëpp ñu sànni rek gën a yomb parce que màkk bu jotee heure bi dañuy yëkkati njëg yi fii ñi nga xam ne ñoo koy jënd ay commerçant lañu léegi boo ñëwee mën nga jënd yi jógee màkk te yooyu jógeewul màkk ay japon la jóge kii Chine ak jóge na xam waaw jógeewul màkk dañ koy indi màkk màkk xam ne lan moo fa jógee tàndarmani ak sam-sam ak sam-sam li ci des yëpp ci àll ba lay jógee waaw waaw kon wala tasiru waasiratun wisra uxraa ëllëg ñun ñëpp ñu nekkee kenn ku nekk ak say dans les bagages benn nga indi bagage yoo xam ni tuyaabal wala ñu indi bagage yoo xam ni bàkkaar ah ah léegi gis nga ki gëm yàlla ki gëmul yàlla mënu ko wàññi dara ci yàlla Nuux alayhi salaatu salaam li mu daj ci ay yéefar waaye borom bi subhaanahu wa léeg-léeg nit day am soxla mu am soxla fekk fa ay nit ñu toog mu toog waaw jiw lan bala ngaa dem ci déy yi kenn déeyal yàlla ba pare ndaxte yàlla moom mooy yore xol yi da ngay dem fekk benn waay boo xam ni da nga am ci moom yaakaar fekk mu am sax lu mu joxe mais boo dikkee ci yàlla yàlla ci boppam moo lay jiitu ci xol boobu nga xam ne da koo soxla boo demee mu bërëb buñ dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu masaan am soxla rek bu dee ñaari rakka tàllal borom bi subhanahu wa taala loxoom ne ko damaa am soxla fajal ko loolu aussi dañ ko war a boole ci li nga xam ne moom moo di sunu diine yaa ayyuhan nabi mooy joxe na allahu yàlla masalan misaal lilladina ñeen ñi nga xam ni kafaru dañoo wax ni gëmuñu yàlla imraata nuuxin jabaru yot yot yàlla nuux la jabaru yot yàlla nuux wala taluutin ak jabaru yonent Yàlla Luut kaanataa ñaari soxna yooyu nekkoon nañu taxta abdayni ci suufu ñaari jaam min ibaadina ci suma jaam yi man yàlla saalihayni ñu nekk ñu yiw ñu defaru fa xaanataahuma defar leen waaw du war leen ci wàllu pas-pas du war ci wàllu mooy wala yu demee ni yooyu mais wàllu pas-pas la alquran di wax fii ndaxte yonent yi salawatullahi wa salaamu yàlla daf di aar aaral leen seen jaboot ci yenn yëf yi taxuma ñu wóor leen bokk ñoom ñoom diine nekk ay yéefar waaye falam yugniyaa jaruñul anhumaa walis leen ñoom ñaar min allahi ci xéewalu yàlla yooyu shay'an tus jaruñu ci qiila wa qiila waxeef leen ñoom ñaar udxulaa dugal leen annaara safara maa daaxiliina ànd ak ñi nga ni dañoo weddi woon dañoo dañu nekkoon ay yéefar gëmuñu yàlla wa tarafa ma ngay joxe allahu yàlla masalan misaal di la dina ñeel gaa yi nga xam ni amanu dañoo gëm yàlla imraata firawn jabaru firawna ay yonent la seeni jabar nekk yéefar kële nga xam mooy firawna jabaram nekk jullit waxtalikul in xaalaat waxtu ba muy wax moom jabaru firawna mi ngi sëyeeg moom nekk ci bi lu nekk la am waaye bokkul ak moom diine kële yëfër biir la moom mu nekk jur biir in xaalaat ba muy wax di tàllal loxo boromam rabbi borom sama ibni lii tabaxal ma innaka fa yow baytan benn néeg rek baytan baytan fil jannati ci àjjana ñu ngi nekk wuyu bu mel ni Firawna wóolu yàlla di ko jaamu kër yi gën a dàq mooy yàlla ci maganaan yàlla najjini yàlla musal ma min firawna ci firawna wa amalihi ak ay jëfam wa najjini yàlla maa ngi lay ñaan musal ma min al qawmi zalimina ci nit yoo xam ne ay tooñkat lañu wa Mariama sayyidatuna Mariama mi jur ki nga xam ne moom moo di Isa alayhi salaatu wasalaam wa Mariama ibnata Imrana Mariama mi nga xam ni doomu say euh, Imrana la allati ma nga xam ne ahsanat ñoŋaloon na farjahaa bayam fa nafaxna ñu di wal fii ca loolu nga xam ni moom moo di ruuxina ki nga xam ni moom Isa alayhi salaatu wa salaam waaw wa sadaqat mu daal di dëggal bi kalimaati rabbiha ci kàddu yi nga xam ni boroomam subhaanahu wa taala moo koy àddu wa kutubi ak téeréem ya wa kaanat mu nekk moom soxna soosu min alxaalitina bokk ci ñi nga xam ni ay jaamukatu yàlla yu mag lañu heure bi jot na wala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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسالك تيسير الاسباب ونجاح الاسباب وبركة الأسباب اللهم بك نستعين وعليك نتوكل اللهم ظللنا صعوبة أمرنا وهون على مشاق السفر واعطنا من الخير أكثر ما تمنى منه واصرف عنا كل شر يا رب العالمين واصرف عنا كل شر يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا اللهم من أحييته منا ففينا للإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين bañ a jaamu yàlla moytandiku di roy yonent tuub lu war kenn bu a gaawee ci lépp xam ni def ko ci bàkkaar moo xam nga nekk jurit bu góor wala nga nekk jurit bu jigéen tuub ba mu set li nga xam ne moom moo di bàkkaar ba pare dogu ci ni lii ma def mu naqadi yàlla dootuma ko def mu nekk loo xam ni lu dëgg lay doon ci yow mu nekk loo xam ni da takkoo ak dafay saxal bàkkaar dafa lay indil bàkkaar loolu bu fekkee nii amul yaa ngi àll ak sa bopp day yow jullit bi nañu déglu yax bi sauvé leen ku ñag leen ku aar leen anfusakum seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaram safara fexe leen ba mucc ci safara fexe leen ba seen njaboot aussi mucc ci safara safara soo xam ni waquuduhaa man tama annaasu ay nit lay doon man safara ay nit lay doon wal ijaaratu ay doj alayha nekk ca yooyu malaikatun ay malaaka wala ci samara soosu malaikatun ay malaaka rilaadun ñu dijj lool lool shidaa tar lool ci wàllu duma ñi nga xam ni dañ doon mooy yàlla ñooñu day laayaasuuna du ñu may allah yàlla maa la nga xam ni amarahum sant na leen wa yafaaluuna dañuy def maa yumaaruuna loo xam ni santeef na leen ko yaa ayuha ee alladina yéen ni kafaru yéen a weddi alquran yéen a weddi yonti yàlla muhammad defe naa benn la ci alquran yaa ayuha alladina kafaru waaw laa taatadiru bu laa taatadiru bu leen indi ay ngant al yowma tey moom ngant dootu fi am waaw innama tujzawna loolu fii si rek xamal ni dañ koy fay maa ca la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taamaloona di ko liggéey ci àddina yaa ayyuha alladina ee yéen ñi nga amanu yéen a gëm yàlla ko tuubu dellu leen tuub leen ilallahi fa yàlla tawbatan tuub boo xam ni nasuhan bu set bëcc la tuubu ilallahi tawbatan asaa man rabbukum seetoo an yukaffira mu faral ankum walis leen sayyaatikum seeni ñaawteef lu bari bari ak lu mu rëy rëy yàlla mën na leen koo jéggal wa yudxilakum mu dugal leen jannaatin yur tajri ma daw min taxtiha te suuba ajjana yooyu al anhaaru ay bëtu ndox yawma laa yuxzi llahu nabiyya bés lay doon boo xam ni yàlla du tëdd du toroxal nabiya yonentam ba walladiina ñi nga xam ni amanu ñoo gëmoon yàlla ak yonentam ba yàlla ci yàlla boole maa bu ànd ak moom moom yonent bi nuruhum seen leer ya yasaa ma ngay dox bayna aydihim ca seen kanam wa aymaanihim seen ndeyjoor waaw yaquluuna ñu ngay wax naan rabbana yow sunu borom atmim lana mottalil ñu nurana sunu leer yi ba ñu mën a àgg fa ñu jëm wax fir jéggalal lanaa ñeen sunuy bàkkaar innaka yow yàlla xadirun ku gàttan nga ala kulli shay'in ci lu mu mën a doon lu nekk mën nga ko yow yàlla heure bi na dafa jëm يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فرعون إذ قال رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه wa kaanat min alqaanitiin yàlla moo faral ngeen di jaar mooy ñi nga xam ni dañoo weddi yàlla bu laajee jaasi Muhammad alayhi salaatu wa salaam am na benn principe boo xam ni war koo gëm principe boobu mooy lan fa ñu jëm ca àllaaxira kenn ku nekk ne la wóor ni loo fa fekk rek yow yaa ko liggéey loo fa am yaa ko moomal sa bopp kenn du jël daraam jox la ko déedéet kenn ku nekk yaa fa say bàkkaar gàddaajoo ko yaa fa say tuyaaba jëlal yéefar mënul jëriñoo ak julit bés penc ba déedéet ba kenn mënul a jëriñ ci àllaaxira li nga xam ni moom moo di jullit na ko mu lor ko gëm te ne sa mbokk la gëm te bàyyi su fekkee ni doom dafa nekk jullit bàyyi nekk yëfër na ko sori jullit daal jullit lépp moom mooy bokkam moo tax yàlla ni walladina amanu wa tabaatu zurriyatuhum bi iman alxaqna bihim zurriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay gis nga jullit